bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala almabuuti rahmatan lil alamin sayyidil xalqi ajmain sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina abil qasim al mustafa muhammad wa ala ahli baytihi alladina اصطفاهم الله واختارهم وجعلهم قدوة وأسوة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk auditeurs rajo Mozdahir FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe Mame Aliou alayhi salaam Zac Mbao Dakar ay di jugee itam ci Zahra FM quatre-vingt-treize ci Kolda ak li ko wër ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di ziar di leen ndokkel ci weer bu tedd bii nga ni weeru wunu sunu borom woo ñam wala boog bernde mu nekk weer bu xam ni mu nekk weeru koor boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mbooleem yónnent bu mu mas dogal na ci yow koor même bu dee nañ koy defee wuute na pour wan la rek solo si nga xam ne moom la am ci sunu dajee bi wees ñetteelu dajee ci waxtaani koor yi demoon nañ ba tollu ci ki nga xam ne am na lu ko teree woor bokkoon na ci liñ ci tuddoon mag mu góor wala jigéen moo xam ne mu ja mënatu ko wala ki nga xam ne dafa yore feebaru mar ba mënatula ba mënul toog diir bi ñuy woor yépp te naan ak ñu fi tuddoon yépp ñu ne kenn ku nekk ci ñoom dañ koy wax mu joxe mudd wala boog fidja lu tolloog environ un kilo wala sax soixante dix grammes ci lekk gi gën a siiw ca dëkk doon tey nga ne ceeb wala dugub bu ko neexee mu joxe ko bis bu ne wala mu jox ko kenn yépp mu dajale ko joxe ko ci benn bis waaye daal boroomi xam-xam ya dañu wax ni na da lekk wala mu jox ko koo xam ne da koy wax ne ko na ko jëndee lekk mu jar leneen lu dul loolu mu ne bu mënut mu joxe lam man bu mënut dara mu jéggulu ci sunu borom bu fekkee ne amul dara amul dara lu mu joxe ne jéggulu sunu borom ko defee mu remplacer loolu yëpp pour wan la rek sunu borom doon wax ne moom jaamam yu yomb rek góor ga da ko daan wax lu lu ci jëfe rek ci diini ji dañ ko ciy dugal ay yàlla moom lu yomb rek jëfee lu dara ci yombal googu ci la dem itam ba comme niñ ko jotoon junjee te ay mbokk wax ñu leer indiwaat ci yeneen ni leeral ki nga xam ne dafa tukki day tukki moom itam lan mooy atteem ak koor jotoon nañ ko dindi ci sunu dajee bi waaye dañ ci xëy na indi yeneen ni rek wala yeneen ni ba say jiitu mooy sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci suratu baqara ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum alshahra falyasumhu man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxra ne weeru koor daal mooy weer wu yàlla wàccee léppi alquran alquran joo xam ne mooy gindi nit ñi jëmal leen lu leen jik aduna ak àllaaxira te mooy topp suñu borom te bañ koo mooy indi ay njub ay leeral ay gindi tàqale lu nekk dëgg ak lu dul dëgg lu jëriñ ak lu dul jëriñ ba daal kum fi fekk ci yéen na ko woor kum fi fekk ngay dund na ko woor bu dee na fekk na la fi waaye daa fekk nga feebar feebar boo xam ne comme niñ ko waxee woon boo wooree mu yokk feebar ba boo yooree mu indi lor boo wooree mu yéex a feebar ba feebar ba sax mën da ànd ak far woor moom te feebar bu dul wér la ni koy faral di faral di waxee kenn ku nekk am na su bu dee ki nga xam ne ñooñu nga xam ne moom yaakaar nañ ci wér ci feebar ba waaye rek xëy na dañ ko yokk bu wooree wala boog bu wooree mu yéex koo wérale demee noonu bon mu ni fa iddatun min ayaamin uxar na dog na dog bu ko defee mu jàppal ko yedda ba weeru koor wa jeex bu wéree mu fay ko foofu itam comme ni nga ko waxee woon bu dee fopp sa daa continuer feebar ba daa continuer ba weneen weeru koor fekk ko fi amul benn diir bu mu bu mu wér bu boobaa loola du ko fay waaye daal bu foofu la détail yi nekk nag waaw foofu la détail yi nekk bu bu mu ko woor bon li ciy gisee mooy liñ ciy yëg ci ci aaya boobu mooy ni suñu borom subhanahu wa taala mi digle war ak yomb giñ ko xamee woon ak yombal bañu jëfeel ci lépp lu mu waral ci ñin ci sharia al islamiya bi nga xam ni diinaay yomb la tegut leen lunu tegut nu lunu mënu waaw laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha sunu borom mi nga xam ne moo wax ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla daal lim bëgg ci mooy lu yombal leen lu ngeen mën a def waaye du leen teg loo mënul leen ko du jëfe ci yéen moom mu indi loolu muy lu ku tukki wala nga feebar nga jàppal ko yedda koor googu ba beneen yoon waaye boo continuer ci boobu ñu jàng léegi jullit yi nag am nañ ca wuute ca boo wëyee la nga xam ne moo ca topp loo xam ne sax ñenn ñi dañu jàpp ne concerné wul lii mu njëkk a moom mooy su e, ku feebar ki ak ku tukki ki mooy wa an tasumu xayrun lakum wa an tasumu xayrun lakum ñu ne bon loolu concerné wu lii kay li ko concerné te wax ja wax na ko mu jeex moom muy daal ku tukki ku oh, feebar wala nga tukki fa man kaana minkum maridan aw ala safarin bon daal fa iddatun min ayaamin uxra na ko jàppal yidda ba weeru koor wi jeex mu fay ko bu dee sarse ya dajee nañ ko defee yàlla bind kutiba alaykum siyam ñu loolu comme ni ko alquran waxee am na bon la mu wax loo xam ne amul benn interprétation ci njëlbeen la ci njëlbeen la mooy daal ku woor bu wala bu weeru koor jotee ki wopp te wala mu tukki te charte yi tukki ya dajee ci moom danañ ci ñëw bu dëppoo ak dogal ak borom bi kooka na ku jàppal yedda ba bu weeru koor yu mu mën a fay mu fay loolu itam am na ay xadis yu koy dëgëral ci wàllu yëpp ci wàllu siatu ahlul bayt yi salaamullahi alayhim muy ngërëm imaamul imaam euh, ngërëm ci ñeneen ñi itam am na xadis yu koy dëgëral muy ne bu tukki amee charte ya dajee wala feebar te li ñu wax noonu ci feebar bi mu yegg ca bu boobaa nit ki amatul lu muy tànn bu tukkee lu dul dog amatul lu muy tànn bu tukki lu dul dog loolu la ahlul bayti fuqaaw yi loolu la ñu wax terewul nag am na ñeneen ñi ñoo xam ne wax na nañu ne leeni mazahibul arbaa nee nañu ñu yay bu bula neexee man manee nga dog nga nga woor bu la neexee itam nga dog xam bu ñu wuutee ñenn ñi ne woor gaa gën ñi ca des ne dog gaa gën waaye bu ñu dellee ci xadis yi nga xam ne mooy dëgëral dog ne moom dog rek bu sarte ya dajee am na ci benn xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ali ibn al-Husayn Zayn al-Abidin mu nettali ko mu ci ay maamam ay baayam ak ci mu ne woor daal ci tukki wala ku feebar nit ñoom wuute nañ ci ñii wax lii ñii wax laa ñii ne bu la neexee nga woor bu la neexee nga dog waaye nun ahlul bayti salaamullahi alayhim lu ci mën a am muy ki feebar wala ku tukkiti ñëpp charte yi dajee ci ñoom ñoom ñëpp dee dañuy dog nee na ku ca woor fekk danga tukki wala nga feebar bis booba même boo ko wooree da nga koy fay ndax nee sunu boroom moo wax ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamil uxar wala boo demee ci wasailu shia noonu nga ko fay fekki beneen bi xadis boo xam ne ku lay nii nettali na ko nee na mas nañoo wax sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ay nit yoo xam ne de yonent bi moom daa wooroon wàññi julli ñoom ñu ne dañuy continuer dafa dafa dog ci tukki wàññi julli ñoom ñu ne dañuy continuer seen ak woor nu wax ko yonent bi mu ne ñoom de osaat lañ osaat mooy ñooñu ay ji mooykat yàlla lañu jalgatikat lañ lañu osaat mooy aasi mu ne humul osaat ila yawm alqiyamati wa inna la naarifu abnaa abnaihim ila yawmina hada cheikh tuusi net li na loolu ba yooyu yëpp li muy tegtale mooy moom amut amut choix waaw donc rek bu sàrte ya dajee bu ñu demee itam ci muslim ci xadis boo xam ne jaabir ibnu abdullahi al ansaari moo koy nettali mu ne sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali génn na ci xadisu muslim bi ci atum fatxu màkka jëm màkka ci weeru koor ba mu yeggee ci place bu ñu tuddee kiraul gani ramim fekk ñoom ñëpp ñi nga woor mu daal di woone nañ ko jox potu ndox ci waxin ñi jox ko ko mu yëkkati ko ba ñëpp seen ko mu daal di naan ñi ba ñu jékkee tuut am ñu ko ne ah am na ci saaba yi ñoo xam ne wooruñu ñu de ñoom dañoo continuer seeni koor la hadis bale waxoon rek fa qaala sallallahu alayhi wa alihi ulaika umul usaat ulaika umul usaat ñooñ de ñooy moykat ya ñooñ de mo ñooy moykat ya loolu boo demee muslim noonu la ko ci septième juz bon bu ñu ci hadis bi bon woor ga ca tukki ma ci charte ya dajee du du dagan am na ci hadis boo xam ne itam pour bañ a tudd yëpp rek ñu tudd ci yenn yi ibnu maaja moo koy solo te hadis ba mu nga jëm ci abdurahman ibnu awf ci la moo ko solo ibnu maaja indi ko mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ali saimu ramadan fi safar kal muftiri fi lxadar ibnu maaja moo ko indi ci sunan yi ci juz bu njëkk ba numéro hadis ba mu ngi nekk mille six cent soixante six mu ne ku tukki di woor mu ngi mel ni ku tukki wut war a woor te woorut am na nag ay lay yu bare yu lay yu bare bare ci hadis boobu taawil ko indi indi ci hadis yooyu ak ci aaya bi indi nañ ci ay taawil yu bare bare yoo xam ne xëy na duñu ko may waaye daal yàlla daal ak yombalam ak yombalam li jël ko itam day am solo am na ci wala boog ñu tudd ci benn rek am na ci ci lay yi nga xam ne moom la ñuy lay ci benn xadis bu xam ne sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo ko wax boo xam ne moom itam mu ngi jógee ci jaabir ibnu abdullahi al ansaari mu ne sangib muhammadin sallallahu alayhi wa ali mas nay tukki nee na mu gis ay nit ñu groupe am ku ñuy keral mu ne ma lii lan la ñu ni ko kuy dee daa wor mu ne laysa minal birri assawmu fil xadar wala assiyaamu fil xadar bokku ci topp yàlla tukki ba noppi fi safar tukki ba noppi di wor ñi bon la tax mu wax ko mooy kooka nga xam ne daa sonn ba gaa yi wër ko yëkkati ku nekk la nga am pour ñi keral ko ndax naaj wa daa tàngoon ñoom ñi taawil ko ne bon mooy bu tàngee ba manatu ko waaye bu njàngee yaxu hadis bi laysa minal birri la wax bokk ci topp yàlla assiyaamu wala assawmu fi safar ci tukki waaye nag ñooñu loolu lañ ko layalee danañ coono baa tax mu wax wax ja waaye buñ ko taawilul rek moom doo ci gis loolu bon mooy nee na bu ne bokku ci topp yàlla woor fekk yaa ngi tukki bon ku tukki di woor nee na doo si jëlee bàkkaar waaye doo si jëlee tiyaaba waaye safaan ba nga ci jëlee moo tax ba bare bare ci saaba yi ñoom loolu la ñu gëmoon jàpp ne boo tukkee daal te ferte dajee da ngaa war dog bokk na ñi ñu ko nettilil Omar ibnul Xataab ak doomam ji Abdullah ibnu Omar Abu Ubaydata Zuhri Ibrahim Naqaay ak ñu dul ñooñu ah, ñoom ñëpp daal loolu la ñu wax nee nañu boo tukkee du ci yow ngay woor niñ ko waxee nag am na si boromi xam-xam demee ni Malik imam Malik Shafii Abu Hanifa nañ ne boo woor woor ay boo dogee amut solo amut amut problème ndax dañ la koo may rek am na ci ñoo xam ne itam dañuy wax ne dog gaa gën ku kookan aw awzaa'i ahmad ishaq ñii yaay tànn sat bu la rek bu la neexee nga dog bu la neexee nga woor bu ko defee loolu fokk ñi yëgee ko masala moo xam ne yàgg nay am ay wuute ne ibnu omar abdullah ibnu omar nee na mas nañoo ñëw di ko wax ci affaire woor ab tukki mu ne ah tiraangaay yàlla de man duma ko delloo ne ku delloo tiraangaay yàlla de mu ngi mel ni am nga bàkkaar bu toll ni jëbalu arafa ndax sang bi mooy ne man raxiba an sunnati ku fi bàyyi sama sunna si fa lay sa min nii bokkul ak bokkul ci man xam loolu la wax ne teraangaay yàlla kenn du ko delloo boo ko delloo am bàkkaar ne ko bon boo bul bul wor loolu ko wax moom loolu bon laysa minal birri asiyaamu fi safar comme ni ma ko waxee léegi assaimu fi safar kal muftiri fil xadar ku tukki wara a dog te dogoo nee mu ngi mel ni koo ne dangaa tukkiwul war a woor te wooro comme ni ko am na am na tabari moom itam nettali na jëlee ci Aïcha waaye marfawaan la xadis boobu Nasaa'i noonu la ko nettali ak Ibnul Mundir am na ay yu bare daal yoo xam ne wax nañ ko ci waaye lu ci mën a am yàlla moom lu jëfe bokku ca léegi am ay situation yu bare bare yoo xam ne dinañu dab ñiy seet nuñ ko regle te pourtant bu ñu dellu woon ca ndey du ko jar dellu woon du ko jar tukki ngóob koora ngóob koor tukki am na ay riwaayaat yu ñëw ni tukki genn wàllu mbugal la xitaatun min al azab ba tax ñu bari nag dañuy wax ne tukki jëfe woon na waaye gën naa yomb tey bon li doon démb du nekk tey ñi des na leen diit yàlla réglam ba léegi lam doon wax mu ngi am te règle bu yàlla di indi règle règle générale lay indi te indi li nga xam ne ku ne na cay jot xamoon na ne lii dana ñëw moom sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi yàlla xamaloon na ko ko ndax diinam jim ko yónnee ila kaafatan li naas ñëpp bokk ca ku ne am ca sa wàll ban xam ne lépp lépp lu mu wax te suuraale wu ci waa démb te la mu waxoon bat la taxoon mu wax loola ba léegi am na ñu ñu ca toll bon dañ ko fay bàyyi rek ko defee kenn ku nekk indi donc daal buñ ko doon tënk daal dañuy ne rek masala moo xam ne yàgg na fi boo demee ci mazahibul arbaa comme ni ma ko waxee ñoom dañ ne ruxsa la dañ la koo may bu la neexee nga jël bu la neexee nga bàyyi wuute nañ ñenn ñi ne jël gaa gën ñi ca des ne da ngay tànn jël gaa gën maanaam woor a gën ñenn ñi ne a gën ñenn ñi ci saxaaba yi andi jag hadis yu bare nga indi ko fi moo xam ci ahlul bayti la wala ci eh, ahlu sunna ñoom ñëpp la wax mooy sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali da koo tere bu mu nekk lu xam ne bon mën ngay wax ne masalaam juyoo wala boog wuute bu ci am moo xam ne du tey waaye la ca sax mooy fa iddatun min iyaamin uxar boo ci nekkee ci situation bu tukki boobu daal walla wopp jooju dogal fay ko bu weeru koor wa paase te man nga am bu ko defee loolu dana nekk hadis itam bu ñu jëmee ci ñoom dañuy gis ne bon dañuy dañuy dog ndax bokkul ca topp yàlla woor te fekk yaa ngi tukki te sartee dajee laysa minal birri as-siyaamu fi safar te sax daan nañ ko jàngale ca wane ne sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali daa dégg jëlek ci arab yi yëpp ñu leen wax lay am na euh, xeet wu daan ñëw di wax naan laysa minam birri am siyaa mum fi fi fi mu safar bon loolu nekk lu xam ne lu jar bakkal la comme ni ma ko waxee nag bu dee dañu delluwaat loolu wuute yooyu nga xam ne wala jéggin yooyu wala interprétation yi am ci aaya ba ak hadis yi ni mu amee ci ahlu sunna noonu la amee itam xalaatkat yi ci àllul bayti yoo xam ne noonu lañ koy indee ñoom itam posé nañ question bi posé nañu question bi kenn ku nekk nekk ci di wax la nga ne moo ci di sa gis-gis waaye bu ñu delloo daal ci njàngaleem wala boog ci li ñu bind ci fuqahaau ahlul beyti salawatullahi wa salaamuhu alayhim la borom téere fuqahaau yi bind mooy ne bu tukkee te sarte ya dajee ci moom dootul nekkati ruxsa dootul nekkati lu nu ko may bu ko neexee mu def bu ko naqaree mu bàyyi bu ko neexee mu woor bu ko naqaree mu dog wala boog bu ko neexee mu dog waaye dog ga du mën a ñàkk ndax loolu lañ ko digal moo tax ñoom dañu wax ne attey dog googu daal ci ki nga xam ne dafa tukki ak ki nga xam ne tukkiwul bu dee ci tukki charte yi fokk mu dajee ci moom pour mu door a mën a dog kooram ba ca mooy lëm de masaafa ba mooy distance bi muy tukki fa mu dëkk ak fa mu jëm fokk mu mat quarante cinq kilomètres yoo xam ne dana ko tukki di lay feeral bayt laa wax ñeneen ñi lañu wax loolu am na ñu ko wax fokk mu tukki foo xam ne fa mu jógee koo dëkk fa wala wala nekk fa ak fa mu jëm mat na quarante cinq kilomètres wala boobu mu mat quarante cinq kilomètres dem ak dikk dem ak dikk moy dem na léegi dikkaat léegi boo boolee la mu dem ak la mu mat na quarante cinq kilomètres maanaam vingt deux kilomètres cinq aller vingt deux kilomètres cinq retour dem rek dikk du fa toog loolu mooy charte bi tey boo tukkee loo xam ne matut loolu bu boobaa charte bi dajeewul ci yow dangay war ñaareelu charte bi mooy ki nga xam ne daa woor tey tukki te ñu may ko mu dog wala boog mu war a dog mooy ki tukki li commencé ci suba si jëm ba tisbaar waaw ba muy jóg di tukki booba tisibar jotagut waaye bu tisibar xasee ba jot mu door tukki kooram googu da koy continuer du dog waaw bu tisibar jotee fekk ko mu fa mu dëkk wala fa mu nekk mu wàcc ne maa ngi tukki kooram googu da ko continuer dootul dogati day xaar ba fa mu jëm fa dog fekk mu dog waaye dootul sañatee dagg koor ga comme tisibaar xas na ba jot te fekk tukkeegul ñetteelu charte bi mooy kooku tukki ma muy tukki tukki mu diina nangu la lam fay defe lu diina nangu maanaam du tukkim mooy yàlla tukkim sàcc tukkim yongaan nit tukkim yàq diggante tukki wax lu dul nuuna loo xam ne bu fa jógee koo dana fa yàq tukki mépp moo xamante ne lam la ko tax a jóg dugut lu yàlla gërëm dugut këppam yàlla waaye moy yàlla la tukki mooma kenn dugg ko ko yombalal ndax kuy moye yàlla moom dafa bëgg rey nit dafa bëgg sàcc dafa bëgg tooñi dafa bëgg yàq ab diggante loolu dara baaxu ci kuy def loolu nag kenn du kenn du la kenn du ko yombalal kenn du la ko yombalal waaw tax moom woor rek waaw yoonam nekku ci day mel ni tukki wut ndax la muy tukki daganut jaadoot yellut ñeenteelu charte bi mooy bu fekkee ne waa ji dafa tukki ci misaal nga ne mu nga Kaolack war a ñibbi woor na Kaolack wara a ñibbi si gi mu nekk wala gi mu dëkk te mu xam ne dana fi ñibbi si balaa tisibaar bu yegg seen ndakaaru balaa tisibaar rek fekk mu ngi wooroon koor googu na ko continue bu daggoon nag dagg na waaye bu dee wooroon na yegg ci ndakaaru gi mu nekk te fekk tisibaar jot bon kooram googu day continue day continue yàquwut buy départ départ njëkk tisibaar day dog bu dellu see njëkk tisibaar fekk mu ngi wooroon day continuer wooram ay loolu yépp nag mu ngi am balaa muy dog bu dee day départ fokk mu génn li nga xam ne mooy périmètre fa mu dëkk maanaam fa nga xam ne fa la dëkk lépp lu nga xam ne mbokk na ci ñun ñenn ñaa koy natt ci trois kilomètres boo jeexalee dëkk ba nga dëkk complètement ba dox trois kilomètres foofa ngay door a amee sañ-sañ pour dog waaye tànk yaa ci dëkk bi bi nga nekk doo doo saña dog ndax wuur jamono bu nekk tukki ma mën naay fomm kon bu dellu ci dëkkam fekk tisbaar jot day continuer wooram bu fekkee itam dafa tukki fa mu tukki yegg fa nar na fay am lu mat fukki fan walla lu ko ëpp bu dee ci Malik ñeenti fan leen wax waaye bu dee ci alul bayti fukki fan la ñu wax ne bu dee tukki nga te fa nga tukki nga nar faa toog lu mat fukki fan wala lu ko ëpp dangay ngay commencé woor dangay ngay commencé matal julli fukki fan danga ko fa am balu ko ëpp dootuñu la jàppee comme bu tukki ci diir boobu dootuñu la may bénéfice bi ko tukki am waaye da ngay woor dangay ngay julli mu mat ki nga xam ne itam dafa tukki xëy na da doon seeti mbir da doon dem waaye jum doon régler ay dossier wala ay këyit wala dafa am daal lu mu doon def mu tukki jàpp ne bu demee ñeenti fan la fay am ñetti fan la fay am juróomi fan la am mu dem ñi da ko xaarloo da ko xaarloo da ko xaarloo ba mu am fukki fan mu toog bu dee xam na ne dana fa amaat fukki fan bu boobaa day mottali day woor te day mottali matal jullim bu dee wóoru ko ndax jàpp na ne balaa ñaari fan ñetti fan dana problème ba dana rek li mu ñibbi mu continuer moom rek ban dañ ko jàppee toujours ne gan la day dog kooram wàññi jullim waaye bu continuer nag tegaatee yeneen fukki fan muy fanweeri fan trente jours ñu ne ko ah doy na nag fii nag lay yem bu boobaa moom moo xam xam nga loo fi sax wala xamoo loo fi sax da ngay wor te da ngay matal say julli bu dee ba romb nag fanweeri fan bu yow même bu fekkee ne xamoo kañ la sa problème da réglé nga ñibbiwaat terewul yow bu boobaa nag la ca fanweeri fan ak benn jëm lali nag da ngay commencé di woor bu dee ko loolu la wala ngay mottali say te da ngay say julli bu defee itam am na ñoo xam ne itam tànk ñu ngi ci seen métier moomu loolu nga xam ne ci la ñu nekk la ñuy wor ndax ñoom loolu rek la ñu am amuñu beneen temps comme moo comme mool yi nekk yi wala ci gaal yi comme ñi nga xam ne dañoo nekk ci avion yi nekk ay pilote wala ñu nekk ay otage wala yu demee noonu nga xam ne daal seen liggéey mooy tukki nga xam ne seen liggéey mooy tukki comme chauffeur yi par exemple nga xam ne diggante dëkk ak dëkk la ñuy daw nga xam ne dañuy jaay di wër ñu yendu tey luuma pasi bu ëllëgee ñi dem luuma ngayam bu gannaaw ëllëgee ñi dem luuma farafeñ dañuy wër ñooñu itam du ñu wàññi julli duñu duñu duñu duñu dagg koor ñi nga xam ne dañoo yore seeni jur fu naat ñi dem fa jurgam lekk fa naan fa bu jeexee wala mu wàññeeku ñu wuyu fa ca tes loolu muy seen liggéey ak képp koo xam ne lay sa liggéey mooy di toxalu tànk yaa ngi ci loola doo dagg koor doo wàññi julli bu dee nag tey moom sëfoor nga waaye tey moom liggéeyi woo waaye di ko préparé nag dal xaaral ma seeti sama bàjjen ji ca njaarim dawalu la sab oto de tey moom da tukki tukki normal comme nit ñi bu ba loolu génn na ci liñ la mayoon muy ruq loolu nga xam ne moom li mayoon jeexal bu nekkoo ca beneen tukki nga ne bu comme ni ñëpp da tukkee booba loolu moom charte bi dañ koo ci yow man ngay dog koor da dog koor te da ngay wàññi julli bu ko defee loolu nag bu ko nit ki de def wàññi yooyu wala dog koor googu comme ni ko waxee da ngay génn ba génn li nga xam ne mooy sa périmètre normal mooy fi nga dëkk nga door koo sañ a def bu dee da ngay euh, dog itam tànk yeggoo comme ni ko waxee bu fekkee da ngay ñëw avant tisbaar te fekkee yaa ngi woroon boo dogee avant ngay ñëw koor googu dag dag boobu normal na waaye boo yeggsee nag fi nga dëkkoon fekkee yaa ngi woroon te fekk ne tisbaar jotagut bu boobaa amatoo sañ ngay dog bu ko defee itam nag ku woor itam nag yàlla def nga am bis yoo ca daggut booy yéenewaat yéenil fay la des ca koor ga boo ko defee itam e, fexeel ba def ko bala weneen weeru koor di ñëw ndax bu dul loolu kat am na ay daan yuñ ko wara a bu dee moo ko tey te mooy weer wu nekk mu joxe walla bis bu nekk mu joxe mudd waaye itam eh, bu dee dafa feebar comme ni nga ko junge woon moo ko tere woon a woor feebar booba tànk bu wéree na góorgóorlu fay ko da koy topp waaye bu fekkente ne nag wéru ba weneen weeru koor fekk ko fa même feebar di continuer ba weneen weeru koor fekk ko fa bu boobaa weeru woo weeru koor woowa du ko fay bu defee koor nekk lu am solo loo xam ne tànk nit kan koy man day nekk loo xamante ne ay njëriñ moo ci nekk njëriñal ci ci wàllu koom-koom njëriñal ci ci wàllu dimbalante njëriñ ñi ci ci wàllu wérgu yaram ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoom ñëpp koor da koy waree loolu moo tax bu dëppook dogal ak borom bi incha allahu ci suñu dajee bi ñëw dinañu ñëw ci benn ci aspect yooyu ci wàllu yooyu rawatina nag bi nga xamante moom lay jàngalee ba ñu li ñu yàlla dénk mustaxlafiina fii yàlla dénk ni ko ci kom ku nekk war cee mën gët yàlla jox ko ci ay nit te yemalewu ko ñam ko jox waaye am lum leen dig loo xam ne dañ ko war a jox ña nga xamante ni moom joxul leen lu toll noona wala joxul leen ca dara loolu yëpp koor koy réguler ba nga xam ne buñ ci jógee ko normalement ñun ñëpp dañoo war a nekk ñoo xam ne ataamahum min juin wa amanahum min xawf ku bëgg lekk lekk ku bëgg naan naan ñun ñëpp ñu am jàmm loolu moo ko tax a jóg incha allah nañu si dellu si waat ci suñu daje yi ñëw bu dëpp ak dogal borom bi fii ci rajo Moussaïr FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi ci complexe imam Ali alayhi salaam Jacques Mbao Dakar ci Zahra FM 93.8 di kàddu njabootu yonent bi ci Kolda ak li ko wër ak ci mbooleem plateforme yi nga xam ne moom la ñu àndal balaa boobu fii ci. Zac Mbao rajo Mousdair 93 point 2 ci xarala gi soxna Xadijatu Diouf ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu